dem ne nga da ngay dem euh, samay question bi ci mi ngi soxal dialogue bi je pense que ñëpp la intéressé par rapport ak appelu chef de l'état bi euh, la moo ciy sa xalaat nga ci bokk wala déet ñaareel bi euh, li xew keroog ci forum bi amoon ci wàllum économie solidaire ak sociale ñu gis ci image yoo xam ne camp bi nga bokk nee nañu dañ ko détourné waa présidence ñoo ko jël def ko wàllum politique maa bëgg xam ba xam gis-gis boobu nga ci am attaques yu bëri topp na ci aussi jóge ci ñi nga bokkal benn camp ñuy leen di wax lu nekk muy yow muy Khalifa Sall Ousmane Sonko démb tamit ci dernière euh, sorti wam wax na que ne am na ñuy rencontrer Macky Sall en silence am na ñu décidé wax na sax kenn koo xam ne nee na ko président Sall nee na ma euh, jugement bu njëkk bi ci affaire Mame Mbaye Niang bi dafa rëcc ndax y avait un juge Pastef maintenant appel d'en rattrapé ñu bëri seen xel dem ci yow nga confirmer léegi rencontre bi donc xel def ciy ñaaw par rapport ak ñetti question yooyu boo ñu ci mënee leeral s'il vous plaît. waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla. Euh, bëggoon wax que lu ma fi indi tey du teesante lu fi indi tey tamit mooy euh, waxtaan ak mbokk yi xamal askan wi ndax ñu mën a xàmme ak mën a man lu ma gëm mooy kilifa day am bàmmeelu biir laa gëm parce que ci loolu lañ ma yare ma bëggoon tamit wax ci leer le 26 janvier ci at bi 2023 laa taxaw ci tele bu ñuy woowee Walfadjri ak site internet bu ñuy woy Seneweb man ma sàkku ci président Macky Sall ñu teg bal à terre woote waxtaan kon waxtaan bi du waxtaan bu Macky Sall woote du dialogu Macky Sall dialogu Barthélémy Diaz ma bëggoon wax ci leer mooy benn beneen bi nag ma bëggoon tamit askan bi bàyyi xel ci lu may wax ba ma koy lancé 26 janvier 2023 ak tey presque ñeenti weer na mosu leen dégg benn kilifa ci yeewi askan wi bu fi yëkkati ay kàddu ne ñoom d'accord ñu ci du Barthélémy Dias wax kenn ci ñoom waxu ko te ñoom ñëpp am nañ sama numéro téléphone ñoom ñëpp xam nañ que Khalifa Sall mooy suma kilifa bu ma toogal ci conférence des leaders te wax naa lu tax ma woote appel au dialogue dama ne man lu ma gis dalul suma xel parce que benn buum la ak ñaari côté ñaari camp ku nekk tey benn côté bañ a bàyyi te ku nekk mi ngi xëcc ku nekk mi ngi xëcc ñaar rek mën a am kenn ki ëpp doole keneen ki xëcc am ndam mais lu ma gis nii gisuma ndam fii gisuma ndam fële te wax naa ko ci émission yi ma leen te dama am xel ñaar parce que suñu toogulee waxtaan lu ma gis mooy bum bi day dagg te bum bi su daggee ñaari côté yi yëpp ñoom ñaar ñëppay xalangu te ala kulli al dina am kuy ilif Sénégal te ci suma xalaat bu gàtt kuy ilif Sénégal suma ko daal mu doon ku ñuy woyee civil mooy lu ñuy moo xam société civile lay bàyyeeku wala moo xam ci parti politique yi lay wala moo xam feneen fu mu munti bàyyeeku ma man dinaa lancé un appel. loolu moo waral Barthélémy Diaz lancé appel le 26 janvier 2023 donc ku fi taxaw tey nga ne loolu mooy appelu dialogue président Macky Sall wax dëgg yàlla da ngay fooy sa xel ba ma lancé appel bi nag mu am ay nit bokkuñu ci politique politikuñu ñooñu daal di jaar ci ay nit pour mën jokkoo ak man. ñu jokko ma laaj leen leen est-ce que yéen mën ngeen jël garanti que yéen mën ngeen wax ak président de la république ñu ne ñun mën nañ jël garantie wante est-ce que yow mën nga jël garantie que yow tamit mën nga waxtaan ak sa leader ma mën leen man ñaari ñit laay waxal ci coalition parce que lépp lu may def ci politique ak ñoom ñaar laa koy seqal kenn ki mi ngi tudd xalifa salla mooy suma leader politique keneen ki mi ngi tudd Ousmane Sonko ma jàppee ko mu suma doomu ndey ci politique ñu d'accord ci loolu ñooñu su ma juumulee ñoo nañ suma kër ñaar ba ñetti yoon te su ngeen su leen neexee yéen ngeen dem suma kër ngeen xool suma kër ça veut dire man tey suma cër mënuma toog fi ne may joxe ay preuve mais ku ma woo ci yenn yi ma fekk si la parce que nag du ma nangu kenn du ma dëkkaloo fu ma dëkkul man suma kër yëpp ay caméra la kuy dugg suma kër dañ lay gis kuy génn suma kër dañ lay gis ak heure bu mu ti doon ñooñu maa ngi leen di jéggalu parce que ay kilifa lañu te amuñu benn intérêt ci bi yëpp ñooñu nangu sol seen dàll ñëw di waxtaan ak man pour mën a dem jokkoo ak président pour mën a convaincre président que man dama sincère ñooñu ñëw suma kër ñetti yoon. say bu ñuy ñëw suma kër yëkkati naa suma téléphone woo naa Khalifa Sall ne ne ko ñëw nañu lii la ñu waxtaanee ma raccroché ma woo Ousmane Sonko ma ne ko gars yi jaat nañ lii la ñuy waxtaan te am naa ci yaakaar ñoom ñaar ñëpp kenn musuma wax d'accord ñu ci lii ñoom ñaar ñëpp te ñu may dégg dem nañu ba ci waxtaan bi man laaj ñoom ñaar ñu ma àndal ma leen est-ce que yéen ngeen d'accord su ñu doon waxtaan laata waxtaan bi di am est-ce que d'accord ngeen jokkoo ak président Macky téléphone saa fonte jàmm ak moom lu ñu ne ma d'accord kon loolu muy firndeel mooy ñooñu ay ay ñitu jàmm lañu. amee amee ñu doon euh, ñu doon euh, ñu doon ñëw pour le compte du président Macky ba ñuy toog di waxtaan di waxtaan. ñu ne ma est-ce que yow Barthélémy Dias est-ce que yow nangu nga toog ak président ma ne leen nangu toog ak président dafa am condition man du ma dem palais man duma dem këru président Mermoz te nangul naa leen tamit président na la République président la mënul ñëw suma kër kon dañuy wut terrain neutre ñu toog ñu waxtaan man leen teg ci nag ngeen waxal ma président gàcce bu Sénégal am ci forum de l'eau bëggoon naa ñu waxtaan si parce que ñu ngi waaja ñëw dalal forum mondial sur l'économie sociale et solidaire te dama bëgg moom mu ñëw te aussi ñëw présider cérémonie ñoom ñu def lu ñu def ba yàlla def ñu ne bés bii ci waxtu bi ci bërëb bi dinaa toog ak président Macky Sall la dernière personne avec laquelle j'ai parlé ba may dugg ci bërëb bi c'était Ousmane on a parlé pendant plus de trente minutes au téléphone man ak moom ci ay stratégie bëgguma wax parce que lii du suma mais les sénégalais ont droit de connaître la vérité parce qu'on doit se respecter ñu toog président exi alors monsieur le maire de Dakar ma ne ko monsieur le président la audience boobu man ak moom kese ak yàlla man ak moom kese ak yàlla président nangu déplacé ñu waxtaan ma ne ko président gàcce bu ñu amoon ci forum mondial de l'eau bii mën na ñàkk te dañuy dalal forum bi ci bërëb bi ci waxtu bi ci date bi ma bëggoon nga ñëw fekk si euh, waxtaan bi parce que économie sociale ak solidaire mooy daanaka ci gàttal lu ñuy woowee Sénégal secteur informel tey su ngeen jëlee tey ndaw ñi liggéey tey Sénégal am xëy quatre vingt pour cent ndaw ñi yëpp ñu ci secteur informel donc ma bëggoon yow nga ñëw. siggil Dakar wante sargal Sénégal parce que du jotoon xew ci Forum de l'eau yow nga jaar nii man ma jaar ne le loolu rafetul te jeux olympiques de la jeunesse tamit ñu ngi ñëw xam ku nekk président de mais man président dama la bëgg a xamal ni ni yow doo suma noonu te yow xam na ni bu xam nga bu baax a baax que yow doo suma noonu suma adversaire bi te président àdduna du soppeeku ba man ma ànd ak yow mu ne loolu xam naa ko baax ma ne président yow ba équipe nationale football gagné coupe d'Afrique da nga ma woo invité ma ma ñëw mu ma loolu am na ma ne ko yow ba ngay inauguré stade Abdoulaye Wade bu bees bi Diamniadio da nga maa invité ma ñëw mu ne ma loolu am na ma ne boo may invité 4 avril damay ñëw mu ne ma loolu am na ma ne lu tax man su ma la invité yow doo ñëw ma waa d'accord dinaa réfléchir ma jëli ma ne ko président jël engagement duñ fa yuuxu kenn du politique moo ñu fa yóbbu duñ fa tàccu kenn Sénégal rek dañuy sargal mu ne ma d'accord dinaa réfléchir naa la noonu la mbir bi demee ci affaire u forum bi ñu commencé nag xuus dugg ci politique ma ne ko président mu ne man naam ma ne ko man duma candidat loolu yàlla dogal namuma candidat ma ne wante dama ànd suma mag ñu koy woy xalifa Sall te dañ ko jaay doole maa ngi jóglu nag ci kàddu yi mën nga ci bañ a ànd mën na bañ a doon sa xalaat wante dañ ko jaay doole jaar ko ci politique galgal ko bañ a bokk ma bëggoon ñu waxtaanee waat kaawu Khalifa Sall ma ne ko beneen bi tamit mën naa juum maa ngi lay ci kàddu yi lu la constitution may ci sañ-sañ mooy dangay organiser élection do organiser sélection ma ne ko yow sélectionneur ñu xaw a sax kaf tuuti ma ne ko tey fii wax dëgg yàlla dama gis